fa lesbienne yi def live ma dugg fa ba pare may live ci sama sénat bi jour damay xëy di toj seen cott nday midi soir midi soir damay live six mille personnes tii ma may omelette seen tuunu ndey man du delloo avance Pape Mbaye sangoone biram jigéen mbaaya star bu mag bi vedette bi grande dame bi VIP bi jeeg bi sa dajaw nday maa lay bàkk damay toj sa lëfal nday puuskatu day yàlla da koo araamal ba mabbal ci dëkk yàlla nee na góor guy nuru nuru jigéen jigéen guy nuru nuru góor ñaar ñii dina dugg àjjana gars yi nag xeex bi du dellu ginnaaw déedéet saaga ndey man naa ko am naa stratégie ragaluma duma tàppet yéen nag man ngeen faa nekk nay ay bippe nga ko mën a ko am crédit ay bippe nga ko nangam loolu seen yëfu féeg la man duma ragal gis sama tuun daf may wax ma dem bu bëggee ma kattante jigéen ma dem woo jigéen bu bëggee ma kattante mm-hmm. góor ma woo góor kattante vidéo ko yónnee <laughs> góor jigéen fii puus day dan ko fii tere yow puusal sa day suy den gi fa gi nga nekk mais di influence ay boy di leen yónnee xaalis ñuy jege Sénégal di leen làkk ci appartement yi pour defaleen visa ñu tëb ñëw ci réew mi pour def góor jigéen góor jigéen dañ ko fii tere. xam nga yónnee woon naa la ay nit ñu fëgg la ay sénégalais ni yow ànd ak ay ñàkk ñu ne tëll sa buntu ba dajj ko ngi génn laxasaay nan dañ maa sa da nga waroon a wax maa la yónnee vocal mi ngi nii. xale yu góor yi dañuy dem laa xale yu góor yi. sama ñaari copain. dégg nga. dem ba tey ñu koy wan ak nangu ñoo jël. dañuy ko fekk tout le temps. dégg nga. aramo tant que dégg luñ ndeyam du ñam luñ neex. sama ñaari copain ñoo fa war a dem dimanche. dégg nga. sama copain yu pare sax. dimanche la nga bëgg attaqué dinañ doxal ndeyam ba muy xoolee benn. ba dina leen bàyyi ci nii bala bàyyi leen ci naa. man sama maam ah ay xàmbu la yoroon di faj ay rab man mii sama jëmm 35 jinne laa àndal jinne bu ci nekk bu demee doxi mission bu ñëwaatee ci leneen lay ne aadama du nen de su ma mënoon a rey dee naa bu yàgg aadama du nen de. maa ngi nii man baaya aadamoo man ngay bakk di saaga gambien nday doyatul damay saaga ma gambien ñëw gambien yi yéen a may dégg aadama baro aadama baro bu fekkee yaa may dégg aadama baro tëjal gambi góor jigéen bu jaaxle kattante ba bu nu tuun gi yàqu day dem Gàmbi lay dem su demee Gàmbi ñu dugg fa nice jigéen ñi wër leen parce que Gàmbi duñ ko tere duñ wàcc Sénégal Gàmbi rek la tëj moo tax yaayaa Gàmbi dañ koo soxla Gàmbi frontière u Gàmbi yi ngeen di tëj ba góor jigéen du duggati góor jigéen yi ngeen may possibilité ñuy wàcc Gàmbi moo war a jeex Adama Barrow jógal ca loolu Zubus Zak Sirat Bill ton mënul wax ba ma bàyyi sama téléphone baa ngi xar jéeg jëpp ak may woo senegal a ngi woote Gambie ngi woote Atlanta ngi woote ñëpp dañ may ñaan ma kenn du ma bàyyi dara tant que kattu man mbayu aadamoo parce que dama ko dama ko yàgg ñaan dinaa toj na fal ndayam ba bëgg pare fekk ko Allemagne maa ngi ñëw Sweden ci wàllu sekk bi maa ngi ñëw Sweden ci wàllu sekk bi aadamoo di nga bàyyi góor jigéen ñu nekk seen jàmm góor jigéen dañ ko fii tere feeg yi nga xam ne nag ñoom ñooy dem ci laayi fu Omzo di leen di leen défendre ak di défendre ay góor jigéen loolu yéen la dinaa live léegi toj seen cottu nday yéen ñëpp am zo zo man maa la gën a dof gën laa raakaaju yow góor jigéen bu màggan nga xoolal say bañ yëpp dem na sa bañ yi li ci des boo ko compté matul diis yaa ngi mel ne jën wun jën wun consolé fanaanal na kenn xamul looy nuróol nagu dëj yow nagu dëj benn ngeen om zo man duma sa morom. pal ndeyam dina wane ak ay ngeen bàyyi ma ak du sax goor jigéen moom ñoo ko fii lañu fekk ñoo ko gënaloo góor jigéen jàpp sira dama la ko ñaan bu am mu ci extrême baay bu dootu katati bu amati rakk wala doom baay jàmba noppil su aadamoo duggee rek noppil may leen ma maag moom dong ñu jàkkaarloo noppi leen rek ñu ko ñu ñu jàkkaarloo jàkkaarloo bu mel ni Modou Lo ak Balla gay. gay bugguma nag ngeen ñëw sama life di bu mbubboo di ragal yaa ngi dégg ba pare Euh, di dem ci laay fu góor jigéen yi di leen dooleel Dior Dieye mooy dooleel góor jigéen ay ñam Marème Sarr ña fa duggoon ñëpp dinaa affiché seen foto ngeen xàmmi leen gars yi foo leen fekk kat seen nday ñii